nous avons en face une opposition qui manipule la jeunesse sénégalaise. Nous avons en face une opposition qui est dans la manipulation waaye ku li nga xam ne moom la ñu liggéey ci réew mi muy ndox muy yoon muy courant muy tali yu baax muy université yi nous allons voter la continuité la continuité c'est voter le candidat Amadou Ba jigéen ñi yéen ñi nekk ci kaw gi suñuy mbokk xam ngeen ne président Macky Sall am na fu leen andi kii taxaw dina continuer ak yéen pour Sénégal gën a naat gën a neex jërë ngeen jëf